est-ce que Ndeye Gueye miy fecc Ndeye fecckat boobu est-ce que mën naa jox leçon de morale soxna Aïda Diallo Ndeye Gueye miy fecc est-ce que mën naa ne soxna Aïda Diallo defal lii ñu ne ko loo koy digal maanaam lii laa koy digal lii laa koy digal bala nga koo digal yow moom Ndeye Gueye bala ngaa digal soxna Aïda Diallo lu muy def sa fecc mi ngay fecc dafa araam moo gën a bon fecc mi ngay fecc di génn say awra di génn moo gën a bon sax njaalo ndax da ngay provoquer njaalo yaa ngi bàkkaar la doomu aadama yi nga xam ne seeni bët oyof na seen xol oyof na seen xel néew na ngay jóg di fecc euh, ba ci yenn woykat yi nga xam ni ku ci mel ni mu jaar ci tur bi ndax mm-hmm. dafa wax euh, mm-hmm. internet bi ñëpp gis ko mm-hmm. euh, muy maam góor Diazaka bi way moom tamit jot naa jël ay kàddu yu ñaaw ba ci soxnaam teg ci kaw ndoddal soxna gis nga ñooñu du ñu ay référence nee naa la gis nga woykatu Sénégal yi ak fecckatu Sénégal yi mhm. lu daal Sénégal ñooñu ko teg dañuy fekk ba suñu biir kër yi yàqloo mhm. yàq suñu njaboot yi yàq suñu doom yi mhm. maanaam di njaaloo njaalo gi nga gis yëpp ñoom ñoo ko provoqué muy fecckat yi ak woykat yi ñoom nañu wax seen digganteeg yàlla nañu xool la lan leneen yàlla dencal ñoom lan leneen yàlla dencal yowmal xiyaam moo gën